ne xam nga ne média nekkul secteur bu rentable média du activité minière média du activité téléphonique média du activité industrielle commercial boo xam ne euh, loo investir da ngay da ngay investir 10 nga jot 100 ñun rek ñun ñooy secteur bi nga xam ne on agit par noblesse on investit pour informer les Sénégalais. On a tous investi pour couvrir cette campagne électorale-là. Il n'y a pas un seul candidat qui a ñu une couverture. balaa campagne bi cette crise là amul kenn koo xam ne dang ñu fay foo bëgg a waxee ñu ñëw taxaw jox la suñu micro loolu mooy délégation de service public pourtant service média public ya koy def dañuy am des subventions de l'ordre de 10 milliards dañuy am euh, la part belle dans les conventions publicitaires ñun loolu yëpp amuñu ko ci donc dafa laaj ñu taxaw xoolaat ni ñuy réorganiser ce secteur là li ñu doon xaar ci ministre de la communication au lieu de verser dans des dans des manipulations vaines et inutiles mooy mu waxtaan ak ñun ci nan la ñuy demee de l'avant on l'a rencontré il ne nous a jamais dit li fi daan am dootu fi amati la rencontre s'est tenue dans une ambiance bon enfant on a même apprécié sa posture mosu ñoo wax comme li mu wax RTS ne daf ñu doon wax ne kenn dootu fi jóge di dem di rencontrer président de la République non ñun bu ñu bëggee rencontrer président de la République on est un le président de la république daf ñu war a rencontrer bind nañu ko ay demande d'audience c'est le président de la république il a 18 millions de sénégalais yu muy gérer on temps et on na désespère pas bu ñu bëggee rencontrer premier ministre du Sénégal c'est notre droit moom tamit ta terewul ñun dem nañu rencontrer ko mais lam ñu wax la jógee ci réunion ba yëpp matérialisé wu si dara le ministre ne nous a jamais dit indi leen ma seen chiffre aide à la presse on n'en a jamais débattu dañoo wax ak moom mu wane une bonne volonté mu wane une ouverture et on avait apprécié et cette posture dafa wute loolu ak posture bi nga xam ne moom amoon na ko beneen affaire bi état dafa am ay services yu crédible yu compétent boo nekkee ministre nga dem bay communiquer le travail qu'il a fait par la suite concernant le fonds d'appui parce que par la suite ñëw na joxe des données exhaustives mënoon na commencer noonu bañ rek contenté wu euh, de chiffres manipuler pour jeter des médias à la vindicte populaire